mbokk yi président Moustapha Amadou Wane mi ngi ànd kàddu yi may wax ak waa bureau département bu Dakar ñu wax ni ëwalan ñoo ngi nuyu njiitu réew mi alxaaji Macky Sall aj gi mu aj yàlla na ko yàlla nangu yàlla def lam fa ñaan ci jàmmi Sénégal yàlla na ko yàlla nangu ci bis bu tedd bii ñu nekk di bisu Ashura mu tombeek ajjuma di bis bu bari ay xew-xew waaye bokk na ci ci gën a marke sëtu yonent sallallahu alayhi wa sallam Cherif li tax ma cité ko moom euh, bis bañ ko boomee di Ashura euh, dafa tombeek ajjuma sunu Ashura ñun tamit tombeek ajjuma kon loolu ñaari tombe la tey jii nag sëriñ daara yi aju ci département Dakar yeneen département yi Pikine Guédiawaye Rufisque Kër Massar di leen ci gunge ñoo ngi wax njiitu réew mi nga xam ni moom la yàlla dogal mu jiite Sénégal daje woon nañu ak moom ak waa communauté daara ca lundi 28 novembre 2022 ca Diamniadio ba ñu dajee ak moom foofulee mu nekk ndaje bu am solo bu histoire bind ñoo ngi gërëm président ci ñooñu nga xam ni wax nañu ni yolomal nañ leen di ay sëriñ daara yu am ay tolof tolof nekk ci kaso yi waaye di wax ni ñoo ngi koy wax ni list ba ñu defaroon noo ngi koy ñaan list boobu mu jàll kon noo ngi sant la weesu tey ñaan liy jàll point bi nag mooy point bi njëkk boo xam ni ba ñu dajeeg président ca jam ñaajo 28 novembre te mu ñaanoon chaque année muy am état Sénégal ak communauté daara loolu lañ ko njëkkoon a ñaan mu mel ni lan ci am ci tabaski gi baax na waaye ñoo ngi koy ñaan mu dollil na ko ci tamxarit gi ñaareel bi keroog bañ dajee ak président waxoon nañu ni bëgg naa amal grand prix chef de l'état ci njàngum alquran keroog sax président dafa wax ni ñun dañu doon dem di jongante ak naar yi ci alquran indi coupe du monde pourquoi ñun duñ leen woo fii kon président ñoo ngi la koy fàttali keroog waxoon nga nu incha allah dana am 600 daara yu ñuy dolli ci daara paquet di programme bu am solo loolu tamit yëg nañu ni liggéey bi mi ngi tàmbali xanaa dañuy soññ mu gën a gaaw ndax fan yii rek ñu génn. Euh, woowoon nañ ñu benn séminaire ak ministère de l'éducation fële ci Thiès def nañ fa ñaari bis yendu fanaan amoon na solo ñetteel bi président digoon nañu juróomi daara yu mag yoo xam ne état Sénégal moo koy tabax ci juróomi région daara moderne muy daara yu mag ñu tuddee ko daara moderne ah bu ñu nee moderne moom jeex na mooy li ñu moderniser la fa war a nekk yépp nekk njàng ma baax parce que bu ñuy wax daara te njàng ma baaxut la sëñ kook ki doon wax maam Ahmed Sakhir Lo rahimahullah mooy daara la koy yàq mooy ñàkk a kon ñu moderniser ko ci zahir ak ci baatin loolu président digoon nañu ko ci région bu Diourbel Thiès maatam Kaolack Kaffrine kon ñoo ngi ñaan loolu ñu réaliser ko euh, bu ma noon sax ñu fexe lii ma tudd ak yi may bëgg a tudd parce que li des ci 28 novembre baree tut balaa booba xam naa mën naa bañ a pare waaye warees na ko mën a tàmbali ñeenteel bi euh, cantine scolaire yi nga xam ni président digoon na ko daara ci suñu ndaje boobu am nañ yaakaar balaa vingt 28 novembre des na ko tàmbali ñoo ngi koy xaar ñoo ngi koy séentu kon ñoo ngi tàqamtiku ci liy ñëwagum waaye di xaar la ca topp juróomeel bi euh, projet loi bi war a tënk daara nga xam ni def ñu ko sil keroog waxoon na ci ndaje bi balee ñu koy yóbbu assemblée daa fekk yéen waa daara ngeen juboo ci loolu tamit en tant que fédération tàmbali nañ ci ab liggéey di woo sunu yeneen naata ngong yi ñu seq liggéeyu daara ñun ñëpp ñu jublu ci balaa 28 novembre fekk na document bu yepp la ñu jébbal ko président ñu voté ko assemblée incha allah beneen bi ci formation professionnelle ñeel taalibe yi donte am nañ ci sëñ aadama ay partenaire mel ni inda bërëb bii ñu nekk bu yàggul ak 3S euh, 3FPT euh, ak ñeneen euh, seqoon nañ ci fii ay diplôme profito sax ci occasion bi ñaanal doyen Cheikh Touré ginnaaw ndaje bi semaine ci la jiitu yàlla na ko yàlla xare àjjana ak sunu président commune bu Biscuiterie Abdourahmane mbay mu def fi liggéey yu am solo semaine bii ñu génn la jiitu ak sunu président commune bu Tivaouane Pël Moustapha Sakho moom it semaine bii di bëgg a jeex ci la génn àdduna ñoom ñëpp ñoo ngi leen di jagleel ak ñaan xëy na balay ñuy sottal imaam yaa ngi fi ñoom sëñ Bachirou Niass ak ñoom imaam Mansour daañu leen jagleel ñaan kon ci tënk sunu juróom benneelu tomb semi daara nga xam ni am na solo lool ci njàngum tubaab waaye waxoon nañ it ni macha allah président diggoon nañu keroog 28 novembre président lam ñu diggoon bari na de waaye lépp nag yomb na lépp a war a jàppandi nekkul yoo xam ni yu miracle la waaye yu daara doon xaar la juróom-ñaareel euh, budget de dotation 20 pour cent war a nekk ci xayma. juróom benn milliard ci dégg bari na de waaye cey buñ ko séddale woon daara yi lu ñuy këlamtikoo lay doon loolu tamit noo ngi ciy soññi président sunu juróom benn milliard yooyu ñu taxaw ci am na lu weesu woon ci nguur gi weesu ba ñu wax ni dafa dugg ci plan tàkkal léegi loolu fàttewuñ ko de président ñoo ngi lay fàttali ndaka noonu li ñu waxoon ci inspection de daara au passage ñoo ngi ñaanal inspecteur Babacar Samb ak waa ministère de l' éducation ñu def lenn lu ñu woo nañu waa Daara ba bërki démb lan ñu mujjee woo kon président ñoo ngi lay xamal ni sa ministère boobu ci njiital Cheikh Omar Anne macha allah ñoo ngi liggéey waaye kon ñu fàttali la président li nga waxoon ci soppi mu fàtt chiye boobu muy inspection bi mu jëm ci wàllu direction général ci wala national ñeel Daara ba ñu mu jël mooy cinq cent yu ñu war a recruter ci ay jàngalekati alquran nga xam ne président dañoo waxoon keroog jam ñaajo ni danañ fexe ba ubbi benn plateforme boo xam ne da ngeen ciy bindu koo xam ni tey am na ahliya am na compétence bu soobi yàlla danañ ci jël a gum danañ ci jël a gum juróomi téeméer yoo xam ni bu ñu leen jëlee affecté wuñ leen école publique waaye seen daara ya fa lañ leen di affecté ci daara Taha Ñang ci daara sëñ Wilane ci daara Baye Keba ci daara Ibrahima Kebe buñ ko jëlee fa lañ lay affecté mbokki loolu baax na de ndax ñun ñëpp suñu bàyyi ba ñu yóbbu daara xalaatuñu woon ñu am ci salaire ñu nekk fonctionnaire xalaatuñ ko woon kon président ñoo ngi lay gërëm fa xusma aataytuk wa kun mina shakirin waaye suñu borom dalaa waxoon la in shakartum la azidannakum bu ngeen santee ma dolli leen kon ñoo ngi ñaan loolu nga xam ni yëg nañ ne tàmbali nañ mboolem inspection yi inspection euh, da euh, maanaam académie muy IEF yi di IA yi ñoom ñëpp yëg nañu ni macha allah tàmbali nañu gërëmal nañu Abdou gërëmal ñu Cheikh Ibrahima Abdou Salaam Sila ak sëñ Adama nga gërëmal ñu inspecteur Diop yëg nañu ne liggéey yu am solo def nañ ko noonu la ñuy gërëmee nag parce que man en tant que secrétaire jot naa iyaa yu bëri bëri IEF yu bëri yoo xam ne def ci liggéey yu am solo parce que bu ñu demee ci IA yeeg IEF yi suñu mbokki daara lañ fay fekk kon loolu dañuy wax président ñoo ngi koy soññi mu ñu accéléré ko mbokk yi lii mooy discours bi samay kàddu bopp mooy gërëm bureau département Dakar